mais pendant que ñu ngi dialogue hmm? au niveau de Yewwi les choses se compliquent un peu hmm? euh, dafa mel ni xalifa Sall ak son mouvement taxaw Dakar ak ay ñoñam ñu ngi leen di exclure démb tenir nañ une conférence de presse xalifa Sall n'y était pas a-t-il été convoqué euh, ou pas euh, commencé nañu ruumandaat naan mën nañu exclure euh, taxaw Dakar parce que taxaw s'est rendu coupable de compromis de compromission avec Macky Sall alors que loolu bokkul bokkoon na ci li ñu dàq ci li nga xam ne euh, moom mooy seen euh, seen seen seen charte. Ah, man su ma déggee loolu rek damay jàpp au fait. Hmm. waaw xam nga lu tax parce que man ci champ politique bi dama gisul. ku fi dul wax ak Macky Sall bu weesoo Ousmane Sonko. c'est ah que amu fi amu fi ça n'existe pas kenn rek laa xam ni moom waxul ak Macky Sall nii directement waxul ak moom directement waxul ak moom jaarale ko ci nit muy Ousmane Sonko ñi si des ñëpp déglu baax la ma la hmm. ku ci waxul ak Macky Sall directement yaa ngi wax ak moom wax ji di jaar ci nit. Hmm. déggoo déggoo ma de. maa lay dégg bu baax. moo tax politique daal seen vaste comédie quoi gis ñoo xam ne guddi gi dañuy wax ak Macky Sall teg ak moom lan moo tax lan moo tax yeewu askan wi ba mu tàmbalee ba léegi. Mhm. lu fay yendu fanaani ci taabalu Macky lan moo tax. lu tax loolu. waaw lan moo tax. mais kan moo koy xool dafa am ay jinne yu fay nekk di rendre kon Macky Sall donc yooyu ay wax yu naqas kandang la. à l'exception de Ousmane Sonko su ma ko doon déglu lan naa koy wax. Mm-hmm. parce que yàlla xam na ni yéene naa ko jàmm. kan xam nga tax ma yéene ko jàmm dañu mës a toog sama bureau Yerim Post mu wax ma loo xam ne du ko fàtte xam nga nit dafa yoo xam ne ça ne s'oublie pas ma grand kontaan naa ñu toog. parce que université bi ma jàngee dama ñëw fac droit ñu may jox référence di ma la tuddal kontaan naa ñu toog. ñu waxtaan mu wax ma vision ci senegaal ak li mu bëgg a def ma gis ni toog na xalaat ci réew mi te bëgg na def am na volonté def comprendre nga moo tax yéene naa ko jàmm honnêtement pour man nag moom dafa mel ni amul conseil walla amul mbokk parce que ñi ko wër ñëpp di wax ñëpp xam nga wax ji lan moo ko indi ñii dañu bëgg a profité ci turam pour am aura ñii taxaw ni maa yaaye mag yu mu demee noonu ñii xam nañ ni booy bi dañ koy éliminer wala jàpp nañ ñi booy bi dañ koy éliminer buñ ko éliminer ñu carte électorale amul kenn ku ci ànd ak moom c'est le dindon de la farce tout le monde de lui. ñi muy toog di wax la stratégie yépp dama lay wax lu ñuy yendoo wax ci Macky sàll lay fanaan. loolu su ma ko waxee war na xam ni man li ma wax dëgg la man du ma waxal. mais mais mais mais non non non man da non euh, euh, euh, MNF man du ma waxantu man su ma waxee loolu moom bu ko déggee dina xam ne man mii li may wax dëgg la léegi nag yow boo toogee depuis mars deux mille vingt parce que nit aussi da apprécier. ay nitam ay waa yeew yi nee nañ dañuy def manifestation le vingt cinq le vingt cinq c'est à trois jours la tabaski xar yi war a nekk ci dëkk bi marchand ambulant yi war a jaay nit ñi war a rey seen bopp pour amee xar gars yi ni dañuy def manifestation le vingt cinq c'est symbolique ci la ñuy rendre les conclusions est-ce que est-ce que tu, tu, tu peux m'écouter ou pas mais le vingt cinq c'est symbolique est-ce mën nga maa déglu yow kooku ku la bëggal jàmm dina la defal manifestation le vingt cinq mais le 25 c'est symbolique defal ndànk ku la bëggal jàmm dina defal manifestation le cinq la meilleure façon pour Sénégal yëpp bañ la génn ci yow mooy le cinq nit ñi nekk ci tabaski bi ku ne di fa nooy defee say ñawi doom ak nooy réglé say affaire rek gars yi nar a perturber dëkk bi gis bu ñu ko defee Ousmane sonk bu amoon téeméeri noonu le lendemain il se retrouve ak junni noonu loolu c'est un cadeau empoisonné. mais Pastef dafa mel ni ñoom du ñu toog est-ce que ñoom dinañ toog un jour des fois ñu jël recul ñu xalaat quoi et puis bare yow yaa ngi ci combat boo xam ni chaque jour que jëfee affaire bi day gën a aggravé de ton côté nga taxaw ñu ni képp aji saar nga ne non non affaire bi ñu dóor affaire ñu non affaire dañ koy arrêté waa jur ndangu kenn convoqué ko ñu convoqué la kanam pare convoqué waat la confrontation gaa yi taxaw ni non bu leen renvoyé affaire bi gars yi taal dëkk bi ñu ñëw renvoyer devant le juge gars yi taxaw ni kenn du la juge ñu yow juger la gars yi taxaw ni buñ la condamné ñu tëj gars ñëw condamné la affaire u Mame Mbaye ñu ni tel noonu non non non lii manipulation la affaire procès gars yi ñëw convoqué la nga ñëw ñun la coppet yóbbu la sa kër par force dégg baax li ma la nga ñëw première instance gars yi ni buñ la condamné ñu condamné la waa def appel ñu convoqué la te ñu ñu condamné la à une peine d'inéligibilité waaw comment affaire beaucoup quand même nga am ñaari condamnation boo xam ne bu nekk yàq na say droit. mais lan la war a jàngat defal ndànk defal ndànk defal ndànk rek ñu dugal la foo xam ne yow kese yaa fa nekk ak sa famille mënoo faa génn mënoo def dara. ñii di wax ñëpp c'est comme la danse d'une charognard des charognards autour d'une dépouille ñiy wax ñëpp autour de toi fam seen propre calcul parce que kaawu Barth rek war na jàngal Ousmane Sonko lu bari quand jour bi seen intérêt divergé yoom dañoo demal ba jàpp ni ñoom ñaar ay frère lañ ñu bokk deret bi seen intérêt divergé tey comme xaj ak muus man nag man su ma dundee loolu yëpp. damay taxaw jàkkaarloo ak sama seetu nag mu waxtaan ak sama bopp quoi. je pense ah. mais Khalifa Sall. waaw ah, je sais pas ba xam parce que Pastef j'ai l'impression dañuy daw rek mais amuñu stratégie amuñu je sais pas parce que benn moment quand il faut il faut tirer les leçons quand même et puis Khalifa Sall. mais li mu def mooy ful la politique ah, c'est un pari gagnant d'après non non politique ndax ndànk politique du tarixa du diine benn politicien bu mag nee na ma du tarixa du diine jëmul àllaaxira mbiru àdduna la Khalifa Sall bi mu demee ba xam ni dem dialogué mooy régler problème am dafa dem dialogué dina ci tirer dividende ba pare yow xaaral ma wax la ah, benn. may mën a xaaral ma attirer sa attention ci benn affaire. Hmm. Sonko il a condamné pour corruption de la jeunesse n'est-ce pas deux ans peine délictuelle hmm? mm gracier peine la bu mën a gracier c'est pas comme une condamnation pour viol nga xam ne kenn du la mën a gracier et puis parmi infraction yépp bi ci gën a sedd boobu lañ ko condamné loolu yow ça ne te parle pas. déedéet. <laughs> yow miy def politique analyse politique loolu ça ne te parle ah, kon baax na kon ñu kon ne waxtaan. non non bu dem si sama parle non nañ kon ne waxtaan non nañ kon ne waxtaan non non non bul arrêté. Ousmane Sonko daal ndeysaan. Hmm. bëggoon naa ay. ay bëggoon naa ay ndaanaan non dafa naan bëggoon naa ay ndaanaan di wax ak moom mais moom affaire dafa dal ci kawam te préparé wul maanaam amul expérience wala boog wanewu ko boog amul staff bu koy wax. parce que aussi je vais t'expliquer une chose gis nga àdduna radicalité du ko régler c'est faux loolu amul doole. moo mondiale sax bi mu jeexee nit ñi dañoo toog ci table ñu wax loo gis ci àdduna wax moo koy réglé. mais peine biñ ko condamné nga xam ne président mun na ko gracier c'est par les les possibilités da nga jàpp ne dañ ko tijjil porox ndoll. non man daal comme affaire bi yow. li xew lépp ça ne te parle laaj. da nga jàpp ne dañ ko tijjil porox ndoll comme li xew mais si ça me mooy nga xam ni. waaw sama me parle. da nga jàpp ne dañ ko tijjil porox ndoll li ma li ma la bëgg a wax daal mooy man. su ma nekkoon Ousmane Sonko wala ma nekk ci stafam am na signe yu bari yoo xam naa ko analyser. war na ko décrypter. waaw gatsa gatsa bi moom jëm àllaaxira c'est pas viable xam nga baax li man bëgg wax parce que bi gatsa gatsa bi commencé ba léegi chaque jour les jours les jours les choses s'aggravent. ba pare li ñu xamul mooy bu kenn ñaan réew mi basculer parce que réew mi bu basculer kenn du ci mucc c'est ça que les ne comprennent pas amul un scénario boo xam ne réew mi day basculer ñiy ñii kon continuer di dund non mënul nekk sa à que kooku ku koy xalal xelal Ousmane Sonko mooy ku amul xam-xam wala ku xamul fan la réew mi toll fi mu toll nii. mais réew mi basculer xam nga mooy lan mooy bu Macky Sall perte ñëppay perte foofu la wax ci toll. képp ku yaakaar ni ñii dañuy dee ñiy dund mais mooy ku comprendrewul dara